Euh, donc de la même manière euh, waa APR ñoo ñemewul Macky Sall ñeme gu doy ne mu taxaw ne jaune la ñu ne ko rouge la. oui mais est-ce toujours le cas. waaw loolu euh, loolu loolu moom nen il faut un peu euh, nga xam la pratique du pouvoir xam aussi les li nekk en enjeu xam nga ñoom ñoo ñëpp majeure partie bi Macky Sall moo leen créer daf leen a créé jox leen ay direction yow DG fii yow président fii yow ministre fële euh, moo fi waxoon buñ bu ko kenn fàtte les gens aiment bien le rappeler ce qui est vrai aussi mm-hmm. ne am na ay dossiers yoo xam ne teg na si concom yooyu mu teg concom mooy ñoom Pape Góor ngi ak yooyu genre Pape Góor ngi <laughs> sama yi nga xam ne jotoon nañu fu ñu jotoon jaar ci ay bërëb yor fa yor yor ay yëf nekk DG yor ay milliards yor ay nangam yooyu Euh, euh, am na seen yëfu interne yoo xam def nañu te xam nga président Macky Sall tey euh, nee na yow mii li ngay gentil yëpp soo la bëggoon lijjanti xajul si yow minute xaju ko ci yow. sëngam yow lay lijjanti nag waxuma ak ñii nga xam ne moo leen créé te xam na ne ñoom ñëpp autant qu'ils sont kenn setu ci kenn kilinu si ñu sax eau de javel wala madaar ñoom ñëpp kenn setu ci ndax mënoo yor fii ay milliards bala bala bala ngaa dugg. yoro ñaari mali yoroo ko dañu daan da nga ñu lay déposé <laughs> xëy suba ji jox la ay milliards Aïssatou yaa ngi tooñ nag mais c'est la vérité donc ñooñu ñooñu moo tax ma ne tey ku taxaw osé affronté Macky Sall naan Macky Sall ne man kii mooy sama candidat nga taxaw osé taxaw naan man damay dem nekk candidat bi mais c'est parce que dafa neex Macky Sall c'est c'est c'est la preuve Daaro Diallo ngi am lay Daaro Diallo ngi nii kenn ku ne xam na ne moo ko moo ko Ba mais il ne s'apprécie pas c'est la vérité mu ne ko limite mer na fi yow suba qu'est-ce qu'il va dire je me range derrière pourquoi il se range pourquoi Zara donc boobu déjà da ngay xam ne euh, peut-être Abdoulaye Daouda Diallo il n'entrait pas dans les dans les plans euh, du président Macky pour être un candidat mais Mame Boye Diao mi je suis désolé monsieur Mame Boye Diao wax fii laa ko waxee sa plateau la dernière fois ba mu fi ñëwee euh, Mame Boye Diao man je suis sûr à deux millions pour cent que

Mame Boye Diao fii comme beaucoup de sénégalais kan moo ko fi xamoon avant président Macky Sall di ñëw te moom si dañ ko yéex a xam sax ci élection yooyu muy xuloo fii laa wax fii ne Mame Boye moom am na lu fu mu teyee président Macky Sall ndax saa yu yuuxoo ñu woo ko recevoir ko euh, jox ko benn saxal ko benn tàngal mu dugg toog nokk nopp jàpp ñaamaram donc. Euh, euh, nee na liggéey la rek poste yu ma am mi yëpp. ban façon liggéey. liggéey dans le parti. <laughs> liggéey dans le parti liggéey la dans le parti. waaw waaw d'accord naa d'accord naa mon frère non d'accord naa. waaye mais d'accord nga aussi que gën fi liggéey ñëpp. donc on est bien d'accord maintenant. Mm-hmm. Mame Boye Diao en tout cas ñun li ñu gis mooy tout ce qu'il a eu euh, promotion bu mu fi am force la la ko amee. Euh, barke Demba Ndiaye fii la ñëw locales yi élection locale yaa ngi nii. ñu am fi ay candidats décla comme ce qui est en passer là brusquement alors que personne ne s'y attendait maam booy jaaw xam nga fii ñu bëri nañu jàpp ne c'est le candidat des jet-setteurs ak yooyu fecckat yeeg moo xam naa bu su nekk président moom palais ba comme gars yi dañuy naan mooy bureau politique APR mais palais ba moom mooy nekk grand théâtre nag xam naa ne fecckat yeeg da nga gis man kanamu jet-setteur non mais yow mën nga yow ku yow mbër nga yow la fecc kat mais mbër <laughs> ah. donc jëstateurs yi ak yooyu euh, ñoom ñëpp euh, euh, Mame Boye Diao est le candidat des fecckat et des danseurs. mais c'est des aussi ay jëstateurs yi ñu donc non non dañu waxtaan rek dañu waxtaan mais c'est des sénégalais aussi leen respecté non mais je les respecte mais. voilà terewul damay wax dëgg. Ah, la preuve mais dañu mel ni jëstateurs yi ay sénégalais. non kaama wax la il faut les respecter quand <laughs> Omar. oui. Amadou Ba Omar Omar Omar Omar nañu waxtaan. d' accord nañu waxtaan d' accord nañu waxtaan rek. d' accord léegi euh, je dis. a journalistes. Ah, Amadou Ba. xasuma euh, euh, man xasuma kenn. kon ku nekk Amadou waaye jësëtër yeeg yooyu. c' est bien c' est bien normal qu'ils aient le président aussi donc c' est quand même heureux que ñu am un membre Diaw mu nekk seen président. Mm. c' est normal jësëtër yi am président. donc c'est c'est tout ce que j'ai dit donc euh, euh, message mais loolu loolu lu ndaw la je veux dire euh, l'élection locale yi gis nañ ko Mame Boye Diao fii la ñu président Macky Sall fii la ñu taxaw xóoral baat ñàngal jàkkaalook ñoom ne ku fi def liste parallèle nga nga diggaale kooku man nangam ak nangam qu'est-ce qui s'est passé. alors immédiatement après Mame Boye Niang moo jàdd koñ. dem reyanteeg. Diouf Sarr Diouf Sarr lan la wax après Mame Boye dañ dañ leen pare ni ñu daan. Mame Boye Diao waax ba Kolda alors que personne sa s'attendait à à c'est vraiment comme un cheveu dans la soupe. mu ne jàmbet jóg dem Kolda. Mame Boye fan la yabee Macky Sall la Mame Boye Diao. fan la yabee Macky Sall Macky Sall nga xam ne moo ko créé de toute pièce fan la yabee Macky Sall Macky Sall ne ko bàyyil mu mu dem dafa jóg après qu'est-ce qui s'est passé plus après. la ma gi ne. j'ai été obligé. Mm-hmm. Euh, de voilà nu mu ko waxee tey. de xaw ma de parrainer certaines listes C'est la, la stratégie. merci donc et puis bii bi est passé à la trappe et puis sa bii bi. il a cité Kolda c'est bien fait pour lui parce que tamit. mais mais est le bordel. mais est vraiment à la poste les gens se cherchent à. c'est la stratégie politique. peut-être que su ko deful woon peut-être que su ko deful woon Kolda mën na dem au maire Omar regarde Omar man ak yow on dit la même chose. Omar vous êtes en train de dire regarde Omar Omar man ak yow on est en train de dire la même chose. on est en train de dire la même chose regarde Omar on est en train de dire la même chose je dis que tout ça procède d'une ah, stratégie mûrement réfléchie. réfléchi par président Macky Sall je dis mm-hmm. mm-hmm. euh, et ça il faut que nit ñi gëm ko mm-hmm. euh, président Macky Sall yàgg naa wax fii nee na yow laa ko fi sa plateau fii laa ko waxee xale yi dem génneel vaar yii di xew nii yëpp man je trouve que c'est une grosse pièce de théâtre boo xam ne scénario scénariste bi président Macky Sall la ba mu xamee ne du dem immédiatement après la xam kan la fi war a teg mm. te pour moi euh, mosu ko yéene Amadou Ba la ko la ko yéene woon donc qu'est-ce qui s'est passé moo tax sànq ba ma commencé dama wax ne euh, ou mu nekk cadeau empoisonné ou euh, euh, mu teg ko fi tout temps pare na quelque chose d'autre donc li ma bëgg a wax mooy candidature yi ba Aly Ngouille Ndiaye par exemple Aly Ngouille j'ai un un petit doute pourquoi parce que Aly Ngouille il fut il fut ministre de l'intérieur mm-hmm. yor fi tamit ay mine affaire yooyu. xam nga ñaar yooyu yëpp ñaari portefeuille ministériel yooyu yëpp fii sous nos yeux euh, moo koy yor. di xam lu bari euh, song la euh, président Macky Sall ni mu nee song ñoom ay membres yu jaaw yooyu du du yomb mu songee noonu Aly Ngouille ndax Aly Ngouille il a du moo tax bu Aly Ngouille bi li ma leer mooy Aly certainement il cherche à se positionner parce que tamit bu ñu fàtte aussi ne euh, te actuellement on